ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله حق حمده alhamdulilahi xamdan yaliqu li jalaali wajhi yaliqu li wa azimi sultaani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk baa ngi dénk sa bopp di leen ragal yàlla mu dénkaana sunu borom bi nga xam ne moom la dénkoon ña jiitu dénk ko ñu mujj ragal yàlla ci jëf ay ndigalam bàyyi ay tereem ci lu feeñ ak lu nëbb mbokk tey di xam ngeen ne danañ faral di dégg ci xutbatul xaaja bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa daan na ko ubbee xutbaam ñuy wax naan wa naudu billahi min sururi anfusina ñoo ngi muslu ci yàlla di laqatu ci moom ngir mu musal ñu suñu ay bakkan kon loolu li muy wane mooy bakkan am na ay wuréy ayu mag te képp koo xam ne yaa ngi xool tey àdduna di xool sunu réew askan wi ni ñuy dunde da yëg ne bakkan yi moom feebar na trop trop trop lu bari tey li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe lu coow li bari bari fañ war a tàmbalee ngir saafara ko mooy defar suñu bopp defaraat bakkan yi laabal ko ndax loolu mooy li nga xam ne mooy tax liñ bëgg fañ jëm ci texe àdduna ak alaaxira ñu mën fa yegg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekkoon yitteem yonente yépp loolu ma nekkoon seen yitte xam ngeen ne yonent yàlla Muusa ba ko borom bi tabaaraka wa taala yónnee ca Firawna te Firawna ku ne dégg na na meloon na ku yàqu la woon yàq mbooloo mu bari dem ba wax loo xam ne moo ko njëkk a wax ci lu ñu xam di woote ne mooy yàlla ji gën a kawe ba yàlla yónnee yonent yàlla Muusa ci moom alayhi salaam lu mu ko wax da ko ne boo demee ne ko fa qul hal laka ila an tazakka ndax bëgg nga sell bëgg ngaa defaru bëgg nga ñëw ma wan la yoon kon fa mu tàmbalee yoon mooy laabal ko ci bon bon yi nga xam ne mooy bon bon bon boni ba kanam ci yàlla yàlla lu gi mu nekk woon di wutal yàlla nedd di noggatu nit ñi di leen tooñ di leen bàyyiloo ak a liggéeyloo du leen fay dara ku ko neex rey ku ko neex tëj ku ko neex def lu ko neex yooyu yépp yàqute yu mag la woon yoo xam ne yàqute mënu ko wees waaye ba ko Muusa alayhi salaam bëggee génne ca loola daa jaar ak moom ci tazkiyatu nafsihi faqul hal laka ila an tazakka ndax am nga cofeel bëgg nga nga ñëw sell laab yonente bi alayhi salatu wasalaam bu ñu xoolee ci alquran lu bari bu nu borom bi azza wa jalla di leeral li ko fi andi woon da cay tuddaale baat bii muy tazkiya dem na ko ci ñeenti aaya man damaa du ñaar ya rek bu ñu demee suratul baqara borom bi azza wa jalla nee na kama arsalna fiikum rasulan minkum ni nga xamee ne yónni nañ ci yéen ndaw loo xam ne ci yéen la bokk muy ab yonent lu mu fi doon def yatlu aleykum da leen di jàngal ayatina suñuy aaya muy alquran wa yuzakkikum mu leen di tazkiya mooy di leen defam bi maanaa li ngeen làmboo ci ay melokaan yu baaxut day def lu mu man ngir ngeen tàqoog moom diggante bokkaale yàlla diggante euh, rëy defe ne yaa kawe xeebaate iñaan soxor wor wax lu dul dëgg jëw yàq der bëgg àdduna bëgg njiit bëgg a siiw yooyu nga xam ne yépp jukkee bakkan yu ñaaw la daa bokk ci liggéeyam bal sax ca liggéey ba jëm dëgg-dëgg mu tàqale leen ak moom wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaaba wal xikma mu leen di xamal alquran ak sunnaam alxikma mooy sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ku ma lam takunu taalamun di leen xamal lu ngeen xamutul loolu suratul baqara la ko wax wa yuzakkiikum waxaat na ko fa sax waaye ñu ñëw suratul jumaa nga xam ne danañ faral di ko jàng ci jullit ajima borom bi azza wa jalla nee na huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yàlla ci boppam moo yebal ci ummi yóone muy arab yi nga xam ne mënuñu woon a jàng mënuñu woon a bind yónente boo xam ne ci ñoom la bokk ci xeet donte ci ñépp la ko yàlla yónni waaye ci ñoom la bokk comme askan yónente boo xam ne lu mu doon def bi mu ñëwee mooy da doon jàngale alquran yatlu alayhim ayaati benn ñaar wa yuzakkihim ba tey gis nga ko mu leen di defar ndax bakkan dafa taq dafa bari ay tilim tilim yu muy àndal yoo xam ne fii ak moom ak moom munta am ngërëmul yàlla mun munta sax dund dund gu tey te kum jege itam tooñ la mbaa mu lor la moo tax borom bi azza wa jalla di nettali ne inna nafsa la amaaratun bi suu bakkan ci boppam dafa bari am amaara mooy loolu la dëkke dafa dëkke di digle lu xanaa ku ci yàlla musal rek illaa ma rahima rabbi bakkan moom yàlla melal ne day digle lu bon daa demaan melal ko faneen ne bakkan bu dal la bu sawar ci topp yàlla la bu bañ ak moy la bu seexlu lu bon la bakkan boobu ëllëg bu dajeeg boromam da ko naan demal nga dellu fa sa borom am la nga bëggoon gërëm sa boroom sa sa boroom gërëm la irji ila rabbiki radiyatan mardiya kon am na fu mu jaar ah, fu mu jógee beeg si foofu mooy dañ koo tëskiya dañ koo defar loolu moo nekkoon yittey yonente yi alxuraan jëpp itam loolu la daa di ñëw pour defar nit pour mu dund dund gu baax ba dajeeg boromam mu gën a baax mu texe mbokk jullit yi defar bakkan boobu nga xam ne xam nañ ne lu war la lu sax la ci alxuraan yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxoon ko yitte loolu daanu ko ñaan boromam dafa am ay jéego yu ñuy jaar pour egg ca kenn du xëy xëy rek baax kenn ju daalewul baax ku juddu da ngaa dikk xamoo dara indaale woo xam yàlla nag waajal na la yu baax ku judd ku nekk fitra moo ñaale na la waaye nag xamagoo dara kon jéego bi jëkk ñu defar bakkan mooy ban mooy ñu jàngal ko nit ki dañ koy jàngal xam-xam bu am jariñ te tàmbalee ko ci xam-xamu diine gis nga ci aay yépp dana wa yuallimukumul kitaaba wal hikmata wa yuallimukum da leen di jàngal ay araf encore di leen jàngal ay maana encore di leen jàngal ngeen jëfe loolu ngeen jàng di jëf ngeen di gis di wax ngeen di dégg di ànd ak yéen bu bu ngeen defee noonu ne leen aw leen góor bu dul noonu mu ne du nii loolu moo nekkoon rôle yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbooleem ñu ko doon ginnaawam ci woromi xam-xam ak nit ñu baax it loola moo doon seen taxawaay muy tazkiyatu si bashar kon ñu xamal leen nit kenn mënu koo defar te jàngaloo ko kenn mënu defar doomu aadama te jàngaloo te la gën a màgg lu ni jàng mbokk jullit yi mooy sunu borom. faalam annahu laa ilaha illa allah suñ borom nee na nga xam man ak yow ak kuy dégg ku ne lay waxal xamal ne amul kenn ku yeyoo jaamu ku dul yàlla loolu ngay njëkk a xam ba noppi am départ bu baax léegi na nga ànd ak yàlla mu lay wan lu nekk na na nga ca war a def ak nanga ko war a defee ak lam lay jural boo ko defee ak boo ko defu tim lam la mën a wàññi nga xam ne yàlla ngay déglu ci mbir yi da ngay daal di baax soxlawul pour nga dawal normal ci télé bi ab policier monté fii wala kenn parce que yow xam nga ne yow yaa responsable lépp loo def boo boo boo boo jalgatee code de la route bi ba am accident bakkan rot ca wala kenn gaañu ca ëllëg da nga ko layoo sa sa borom yàlla ngay bàyyi xel parce que ci loolu lañ leer laa xamal yàlla yàlla ku ko xam ne danga koy bëgg da nga koy ragal da nga koy rus lool da ngay sawar ci jëfe ndigalam ndax xam nga ne am na pay te du la neenal da ngay ragal lool may ko ndax xam nga ne boo dajee ak moom ca may ko te jégalu la mën naa metti te kenn du jàpp kon li njëkk a xamal nit ki ci biir xam-xam bu am njëriñ bi mooy boroomam tabaraka wa taala alquran bi mu dikkee fekk askan wa yàqu xam ngeen ne arab yi boobu jamono niñ meloon kenn munta yàqu ba weesu ko ci rey bakkan jaay doole sëy bu dëgënut bokkaale yàlla jaamu ko jaamuy xiram gisaane nenub ganaar sax mën nañ ca déclarer guerre nenub ganaar boo leen ko tojalee mën nañ ca rey bakkan googu yàqute yàqute mënu ko weesu waaye alquran leen da leen a tàmbalee jàngal iqra bismi rabbika allazi xalaat diir bu gàtt ñu mel ne ñii du woon ñooña soppiku ba yilif àdduna wala ku ñu yilifut timit da leen bàyyi xel te du doole juñ jaay nit ñi waaye ak njubla guñ jaar ak defaru bu baax yàlla jàppale leen dimbali leen ñu daal mel na neen nuñ melutoon kon faw nu jàngal nit ñi te jàngal leen yàlla te bàyyi rax bi nit loo ko mën a ragaloo du dul yàlla bu ko ragalee tamit da koy lool mbaa du ko jariñ nit li koy li muy ragal mu jariñ ko ki muy ragal mu jariñ ko mooy yàlla kooko yaakaar loo ko dul yàlla da cay perte du ko jariñ ki muy yaakaar mu jariñ ko kooko di yàlla ndax kooko rek la war a sa yaakaar kooko la war a sa ragal kon faw nu jàngal nit ñi xam-xamu diine te xamal leen yàlla ñu ñu wéetal ko te bañ ko wutal den ci lan te xam ngeen ne bokkaale bari na loolu su askan nit ñi lu nekk jekk nañ pour def ko jàpp nañ ne am nañ fenêtre bi mën a jaar ba génn ci parce que yaruñu leen ci yàlla ñu bari loolu mooy jéego bu jëkk bi mu ñu jàngal nit ñi seen diine te jàngal leen seen borom mu jiitu ca loola la ca topp xam-xam boobu nañ ko jàng ca ña ko xam al ulamaau rabbaniyun ar rasixuun xam-xam du ci du ci ku dee nga koy jële waaye danga koy jëlee ci ku ko xam ñu yaru ko ca mu koy jëfe même su amee xam-xam te jëfewu ko sax bu ko jël ci moom ndax jikko da nga ko soxla ci ka lay jàngal balaa ngay soxla xam-xam kon njàng ma na na ànd ak boobu programme jàngalekat bi ñuy wut muy jàngal suñuy doom di jàngal suñu askan nañ ko xool ci jikko ya war a na ci moom na ci moom ba nga xam ne la muy wax du wax lii def lee su ko defee ña jàngal di wax ak ñoom day sawar day yomb ngir ñu mën a jëfee la muy wax ak a ko wote bokk na dañuy dañuy dañuy fa ñuy jaarit mbokki jullit yi ngir defar suñuy bakkan defar ku nu war suñu loxo jot yi mooy ñuy ànd ak ñu baax di wut àndandoo yu baax bokku tak rek ka lay jàngal mais ñi ngay àndal na doon ñu baax ndax koo def xarit di ànd ak moom du bu ko génn mu neex la mu naqari la na mel dana la ca wàll ka xaamilil miski wa naafiqil kii rasulullah sallallahu alayhi wa nee na ki ngay toogal muy ku baax ak ki ngay toogal muy ku bon misaal ma mooy ki yor misk muy gëtt gu neex googu parfum yooyu di ko jaay benn nga jënd am sa parfum wala mu may la wala xet gi xeeñ la sax neex na waaye moom dana la amal njariñ ndax ku baax ki nga dal noonu la mel kële nag nee na mi ngi mel ne kii naa naafixil kii di ki ne ci mbaar mi di euh, boyal forna bi wala mu boyal upp gi ngir lakk di sooy ay ay ay feer ak yooyu defar allir wala muy defar boo toogee ci wetam bu uppee saxar si mën naa ñëw ci yow xeeñ la xam nga ne saxaar xetam neexut boo boo allergie nga am problème wala nga asma wala léegi farañeent mën na ñëw lakk sa yére kon doo doo ñàkk ci moom kon ki ngay àndal tànd ko ngir sa bakkan baax sallallahu alayhi wa sallam ne almaru ala diini xalilihi fal yandur ahadukum man yu xaalil fi ne koo bëgg a xam mooy kan xamal ñi muy dugal ak génn boo leen xam di ko xam nee na nit ki mu ngi ci diine yi xaritam kon ku ne ci yéen na kam ka muy soo bëggee sa bakkan sell ki nga xam ne boo toogee ci moom du fa jëw du perdal temps du waxtaane adduna ba fàtte alaxira du woyefal jaamu yàlla du doyadal xam-xam waaye safaan ba ca la nekk ci yàlla la lay woo même su waxut sax comportement rek dalay lay soññ ci yàlla kooku mooy ngay tànn ànd ak moom ngir nga baax beneen ba ci jéego yi nga xam dañ ciy jaar pour defar suñu bakkan bokk jullit yi mooy nag ñu bari lu ñuy tuubal yàlla ndax ñun kat bàkkaar dana yomb lool te kenn ci mënut ta xëy ba ngoon waat na defoo bàkkaar bu dul dara sax ni nga war a màggale yàlla ak fi nga ko war a teg li war sa digg ak sa borom mënoo ko matal te dañ caa war a dem ba jeex nga jéggulu lool xéwal yi mu la jox santoo ko ba mag loo góorgóor góor rek manquement day am sa digg ak sa borom kon ngay tuubal yàlla ndax bakkaar day diisal bakkan day diisal ak ruux day muurub xol ba nga xam ne lu baax du ca sawar du ko bëgg kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksib nit li ko dàqaloor mooy jëfam ju ñaaw moo tax hadis bi ñu wax léegi ci xutbatul xaaja xutbatul xaaja dane wa naudu billahi min shururi anfusina lu mu ci teg wa min sayyiati amalina ak sunu jëf yu ñaaw gàllankoor gën ko rëy mbokki jullit yi wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum yàlla nee na lu leen dal ci musiba rek seen loxo la wa yafu an kathir te loolu yëmut adduna ak alaxira tam ku fa dem gis loolu naqari yaa ko jëf kon ñuy tuubal yàlla wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminun laalakum tuflihun di ko jégglu te ku baax la wa inni la gafaru liman taaba wa amana wa amila salihan summa htada ku ko jégglul ku ko jégglu kon dellu ci moom gëm ko bañ ko bokkaale kenn góorgóorlu ci lu baax dabaatal li la rawoon ci ay yu baax moom sax ci loolu continuer su ma tada nee na mu jéggal la ak bàkkaar ba lu mu réeri kon jéggalu yàlla day laabal bàkkaar ndax bàkkaar da koy tilimal da koy diisal ba du sawar def lu baax dana ko bëgg sax parfois mais du ko mën a def ndax demee lañ ko jéng xam nga kuñ jéng nga bëgg a dox sax doxeen du sotti bàkkaar day jéng borom mbokk jullit yi bokk na ci li gën a baax baax tey defal bakkan mooy zikrullahi di tudd yàlla ñun ñu ngi tudd suñuy bàyyi suñuy xarit ak suñuy suñuy yëf-yëfaan dañuy xëy di wax ba ne xaaw waaye li ñuy tudd yàlla day ñu bari ci noonu wallahi bariwut wallahi bariwut nit ñi egg nañ ci ni leen àdduna jiitale fu ñuy waxee yàlla sax dañuy bëgg mu gaaw jeex bañ dem seen yoon day su ko xam ne bu demee jàkka ji di julli bu sëlmalee du attana def subhanallahi walhamdulillah baaxeet salaat yàkkamti naa dellu ci la muy dellu moom du masa du ma fa jeex tee nga jël sa temps tuuti nga teewlu ci jàkka ji tudd yàlla dundalaat sa xol yeesluwaat waaye da nga yàkkamti mel la ko toogoon ci ànd te amaana sax liggéey woo boo demee ca garam place bi nga toog di waxtaan rek kon faaw ñu góorgóorlu ci tudd yàlla lu bari uzkurullaha kasiran la la yàlla wax dee leen ko tudd lu bari tudd yàlla moom njàpp du ci sart toog du ci sart dugg ci jàkka ja foo nekk fu dul fu dul toilette yi mën bi sutul gaa yi mën nga ko def te moom amul benn effort boo xam ne da nga koy def da ngay noppi ñaan si waaye boo ko tuddee ni ñu la ko sant boo ci duggalul si bopp boo mu tudd koo xam ne da nga yuuxu wala mbooloo mi ànd di di tuddandoo loolu moom suñu sosi bopp leen bokkut ci diine mbooloo bu ndaje fikk rek ku nekk da ngay toog en nga toog yow sa bopp nga tudd yàlla mais tudd groupe par groupe loolu amul ci amul ci shariatu Muhammad kenn par kenn jur nga déranger kenn wax ci kaw yàlla dégg na ko yàlla ngay tudd fazkuruni azkurkum kon tudd yàlla boobu lañ wax nga def lu bari loolu day dundal xol bi day defar bakkan bi da ngay gën a bëgg yàlla te loo ko gën a bëgg rek gën a baax gën a sawar ci lim bëgg bokk na ci itam muy jëf yu baax yi farata yàlla yi nga góorgóorlu ci day defar bakkan bokk julli rawatina julli mii nit moom su fonkul julli bul ko mimal dara billahi alazim nit ku sàggane julli lu mu la wax def ko daa tombe rek waaye ki la cosaan mooy du wax dëgg du def dëgg wala nga xam ne intérêt boppam la waaye du am colère ndax ki mu gën a ki ko ëppal njariñ mu yàlla yor njariñam la njëkk a wor ku mu warati yéemewut moo tax foo foo fekk ku sàggane julli dee ko laale bant bu gudd waxuma ko dul julli de mais ku ko laale bant bu gudd amul kiiraay bu dox diggam ak def lu bon ndax yàlla dana bu aqimi salaa taxawalal julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day tere nit ki ñaaw téef ak lu bon mbooleem ndigali yàlla yi noonu la mel koor azaka gis nga xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal yi asaka joo xam ne da nga leen ciy laabal danga leen ci tàggat ñu nangoo joxe ci yoonu yàlla yàlla jaral leen lu leen dara jaralu ndigal yàlla yëpp noonu la mel mbokk jullit yi bokk na ci li gën a rëy bala may ñëw ci boobu sax ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko ñaan boromam wax naa ko léegi di wax ne allahuma aati anfusana taqwa daf si taqwaha yàlla joxal sama bakkan ak ragalam yàlla wa zakkiha laabal ko sellal ko am anta xayru man zakkaha yaa ngën ji kuy laabal bakkan moo tax boo demee ca suuratu nisaa yi dane alam tara ila alladina yuzakkuuna anfusahum waaw ndax jot ngaa xam ñi nga xam ne dañuy jéem a tagg seen bopp naan man a man a nii laa nee na loolu de lu ñaaw la wurtaam nit du tagg boppam falaa tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa mu ne balillaahi yuzakki man yasha yàlla mooy sellal mooy mooy baaxal ko soob kon tazkiyatu nafsi ñun dañuy jéem waaye nag yàlla mooy sotte waaye nan jéem yàlla moom ku dox jëm ci moom mu gàttalu la daa baax kon ngay ñaan yàlla mu defar sa loolu sax sa yónni da ko doon ñaan alayhi sa wasalaam bu mujj bi nag te moo tënk li jiitu ak lu ñu lu ñu nar waxaat ci buntu boobu mooy di jàng alquran te di ko setantal wallahi mbokk jullit yi man de soo ma laajoon adduna ku fi gën a mat a yërëm mooy ki xëy si booba ngoon te amul jukki alquran te jàpp naa ne itam. danaa ci bari yu ma dëppool ñu xam lan mooy lan la alxuraan def ci nit fan la lay jële ak fan la lay jëme alxuraan fu mu la fekkee rek jëlee la fa xam nga loolu mooy la bu la fekkoon nga yées da lay baaxal su la fekkoon nga baax da lay yéegal nga gën a baax loo ragal ragal yàlla bu jàngee alxuraan yokk ragal ko loo bëgg-bëgg yàlla bu jàngee alxuraan gën ko bëgg loo seexlu seexlu lu bon bu jàngee alxuraan gën ko seexlu lu baax ci wax ji ci pas-pas ci jikko yi lépp rek dafa rafet moo tax ma ne innahu la quraanun karim innahu la qur'aanun karim karim la wax karim walbati ko ne innahu la qawlu rasulin karim ki mu ko wàccee ci moom mu andi ko muy jibril ak ki mu ko andi ci moom ñoom ñëpp dañoo tedd walbati ko nag moom alquran moo ne dafa tedd dafa baax te karim jooju mu mel ne alquran la melalewaat boppam yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbikal karim kon ku bëgg a defaru alquran am ci wird di ko jàng di ko settantal lépp lu ñu wax ci lu baax mi ngi ci biir kon bokk jullit yi nañ def suñu yitte defaraat suñuy bakkan lii ñu dégg ci réew mi accident yu metti ak bakkan yi faat ñu ñaan yàlla ña ci ay jullit ñëpp yàlla yàlla yërëm leen yërëm boo leen may daw di jullit ñi euh, seeni jegeñaale yàlla may leen xoli muñ ta fay leen tiyaa bu juré te lii ba yàlla musal ñu bañ a amati fii bañu a amati fenn wax dëgg yàlla loolu sañ nañ koo ñaan yàlla waaye nag suñ jukko yi lan war a xoolaat tëli bii ku ci dem da nga xam ne ay luwaay kese li jëntuwul mbir mi luwaay yi baax na bu fekkente ne teg nañ ko ci yoon fa mu a tegu waaye mbir mi dëgg-dëgg mooy nit ñi lañu war a defar mbokk jullit yi bu ñu dee waxante dëgg da gis koo xam ne day dem nekk ci kaw tëli bi mel ne moom dong moo moom tëli bi nu ko neex lay dawale day tourner san signal wala mu signal gauche jàdd droit kooku ña la lan ci accident la mën daal mën a créé kii ci ginnaawam mag ka ca kanamam doon jéggi defe ne nii lay jëm mu jéggeeg maanaam keneen mën naa ñëw problème yu bari mën na ko te loolu yéen ñëpp a ngi koy gis. wala koo xam ne day ne sans signal xamoo fu mu jëm da ngay ne ci kanam ba mu jëy jekk rek ne kaset ñëw sa kanam léegi-léegi biis lay doon boo ne la ca nekk ay mbooloo mu bari la lañu war a defaraat ki yëg ne bakkan bi waxuma bakkan mais aw weewu doomu aadama képp nga damm ko da nga ko lijjantee ak sa borom doomu aadama kenn du ko lor yàlla da koo tere bu ñu yaree ñu ñi ci lool ba noppi lu waaye da koy day day day day day complété lan lay complété mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo dañoo dañoo tëx yar du tax ñu baax am na ñoo xam ne loo leen yar yar dañuy dënk am na ci nit ñi su bàyyi itam ñoom danañ ragal luwaay danañ ragal policier bi taxaw wala gendarme mais man nga yow mètre carré bu ne nga def nga nga monté fa diggante bi ngay montage bi ak montage bi mën na fay def njeexu mais su xamee ne bi mu taxawee ci kanam euh, fii ci montage bi ak fële diggante bi lépp yàlla yàlla nga koy gis lu mu fi def moo yàlla yàlla la am affaire est-ce que dana def lu jaadu kon jikko yi lañu war a defaraat wax ji day bari rek waaye buñ dëlëw ñu ci yàlla dara du sotti subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin